jërëjëf ci introduction bi yéen nag ci euh, fondation Thiès solidarité bii ngeen nekk nii wax dëgg yàlla euh, tey laa leen découvrir wante euh, wax ngeen ma léegi li ngeen def seen parcours bi ngeen def ba fii ngeen yem nii te loolu aussi bett na ma ndax bett gi ma bett mooy ngeen nekk ay xale. Eh, nekk ci buntu àddina di wut li ngeen am ngeen di ko dimbalee ay néew ji doole loolu daal lu ma yéem a yéem a yéem la parce que ni ma xamee fii ma toll ak at yi ma nekk am naa benn parcours boo xam ni gisuma ko trop ci jeunes yi ci màgget yeeg mag yi laa koy doon gën a gise kon man loolu dafa ma jox beaucoup de fierté wax dëgg yàlla ci lii ngeen ñëw tey jii di ma ko sagale di ma ko sargale muy la femme sociale de l'année 2021 man nag dama nekk jigéen joo xam ni euh, yar biñ ma yar dafa tax nit ku xaw a làqatu laa du ma du ñu bari bien que yàgg naa Cees liggéeye Cees ñu baree bari sax tur bi lañuy gën a xam que jëmm ji léeg ma dem ci place sax ñu ne ah kii mooy awa xol ah li ñu yàgg dégg sa tur xëy na en bien xëy na ah, ah, ci leneen mais man ci en bien rek laa yaakaar kon bon lii ngeen ma honoré def ma la femme sociale de l'année 2021 lu am solo la ci man lu ma fonk la ndax de wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamina bu dee yu demee nii rek am naa ci yu baree bare baree baree bare ça dépasse la trentaine bi mujj bi ñu ma defee euh, la femme chargée un peu de promouvoir la paix muy distinction boo xam ni bu ma fonk la mais dafa mel na distinction bu ñëw rek day puus morom ma bii dafa mel na puus na boobu bu dafa mel na puus na boobu donc ah, maa ngi koy nangu de ko rafetlu di leen ci gërëm di leen sant. Euh, ci sa carrière euh, sociale en tant que euh, assistante sociale lan moo la gën a marqué ci sa liggéey ci loo ñu mën a wax durant 17 ans de carrière yi nga def yépp man daal bi ma liggéeyee depuis 1968 laa jël service au mois de juillet ou novembre laa jël service fii ci Thiès liggéey fii ci trois servi service nekk ci yëpp macha allah nag ay chef de service ba ma ca nekkee it may jéem lool jam am jom lool ci sama moroomu ay góor sax li ma ci marqué nag xam nga man niveau yu yu wuute laa laa laa laa liggéey ndax boo nekk assistante sociale dafa mel na yow lépp ci lépp nga bokk ci lépp ngay liggéey boo demee ci santé am na lu ñu la jàngal ba nga mën a xettali ña nga xam ne dañu am problème santé boo demee éducation am na lu ñu la jàngal loo xam ni mën ngaa xettali ka nekk ci niveau éducation te am jafe boo xoolee social jàngal nañ la xam ne aussi mën ngaa xettali ñun def jàngaluñu ba ñu nekk ay expert mais dañ lay jàngal lu néew néew loo xam ni yow doomu aadama bi nga xam ne am na jafe-jafe yow di nga ko mën a xettali boo bu sa xam-xam yi jeexee nga jàlle la ko donc en en fait assistance sociale noonu laa ko mën a euh, waxe mais li ma gën a marqué euh, mën naa ni ñaar la ba ñett sax euh, en 1981 dafa am institution bu ñu ubbi fii ci Thiès ñu di ko wax INEFJA te nit ñi di ko wax sax d'une façon un peu nu ma neexul école gu mbaye foofa wax dëgg yàlla dama fa liggéey liggéey boo xam ni du wéetuwuma ca liggéey ba ndax liggéey ba bu ma ko liggéey dama ko bokk ak ku mel dama dem ndiir may mun a Souran ki est devenu par la suite ambassadeur de France de Sénégal en France ñu liggéey fa liggéey boo xam ni vraiment wàcc nañ fa suñuy mark par la suite ma liggéey ci maanaam suñu mbokk pékku gi foofa lu ma marqué marqué la parce que ba ba ba ba ma fay dem dama bokkoon ci benn organisation internationale bu tudd Sox Optimiste International nga xam ni ñoom madame Béyek ak ñoom may mun a Kan magistrat ay grande dame ak ñoom Andène Mbaye Derneville ñoo ko fi indi woon ñun ñuy ay xale ñu boole ñu ja foofa ba ñu fa duggee ca village boobu fekk nañ fa wax dëgg yàlla jafe-jafe yu baree baree baree bare wante bañ fa duggee bañ fa laata génn indi nañ leen forage dugg nañ ca école bu dugg def nañ fa suñu loxo dugg nañ ca dispensaire ba def nañ fa lo suñu loxo defal leen périmètre de maraîchage bu nganda nganda boo xam ni mën dañ caa bay ñoom jigéen ñi di ñëw jaay ci Thiès loolu aussi lu ma marqué sama parcours la li ma gën a marqué aussi ci parcours yi Euh, mooy euh, sama liggéey ci personne handicapé handicapé yi xam nga personne handicapé yi ñoom bare nañu catégorie euh, visuelle yi ci lañ bokk mm, enseignant yi ñooy waa PAYCOOK ci lañu bokk mais handicapé moteur yi nag ñoom ñoom dama teel a liggéey ak ñoom gis nga en 1975 bi ñu defee année internationale des handicapés moteurs ci région bi ma ànd ak sama càmmiñ Idi Ndiaye ñu koy piloté dafa amoon benn dama doon wuti ay doole moyen ma jël benn handicapé moteur booba déjà am naa oto ma jël chariot dugal ko sama gannaaw oto maa doon dawal moom mu toog ci kanam ñu dem building ñu yéeg ma amoon càmmiñ boo xam ne ministre woon tudd Abdou Khadir soxo may puus handicapé bi man awa xool bi ma dikkee sa alkaati xaw maa ne Eh, may seen liggéey lañ doon def ma taxaw beru rek yaru faf Abdou si soxo doon liggéey si comme xam na ma sama xaritu frère bu ma bokkal ndey ak ma tiens ma sœur qu'est-ce que tu fais là quest que lu jot sa jëkkër bi sa jëkkër dafa feebar qu'est-ce pour a pourquoi il est sur le chariot ma jooy mun ma ne pleure pas viens dans mon bureau ma pousse ko dugal chariot bi dugal sama bopp mun ma toogal ma toog may jooy di jooy mun ma bul jooy loolu indi lan la kii soo sa jëkkër la lan moo ko dal ma ne ko déedéet dañuy def feete personne journée internationale des personnes handicapées ma ñëwoon di wut ndimbal mais keroog ba ma fay jóge dimbale na maa dimbalee dimbale ba soxlaatuma ndimbalu keneen mun ma kii du sa jëkkër ma ne ko déedéet mais c'est mon frère ñu dem ñibbi ñu def organiser loolu ça m'a beaucoup marqué loolu ma doon def nag. dafa am jigéen yoo xam ni yu ko daan def aussi je peux dire ku ko mel na may mun a Sourang moo fi jëkk am 4 x fii ci Thiès ci jigéen ñi mais otoom presque loolu loolu la leen liggéey ma ngay jël asaka pharmacie ma ngay jël lii ma ngay jël laa kooku moo tax lu mu am rek mérite ko ko jox ak ku mel na ay Thioune ak ku mel na Mika Diaw ak ku mel na Idi Ndiaye j'étais pas seule dans mon travail. jete bien entourée j'étais bien chouchoutée donc loolu aussi ñetti yëf yooyu daal lu ñu ma marqué la sama àddina dafa amoon ay allemand yu fi ñëw euh, fekk may encadré jigéen ñi ci kër Adama Jaxate président de handicapé ñu nekk ci benn kër lal suñu basang toog di liggéey tubaab yi ñëw fekk ñu fa ay allemand lañu daam ba sax elle s'appelait Doris Raquet mu ñëw mu ne ma waa looy def li ma ne ko ah man damay encadrer femmes yi rek mais comme amuñu mooy amuñu siège amuñu dara ñu toog ci basang gi rek di jaamu yàlla. Doris rake moomu ba mu ba mu ñibbee amul beneen problème bu mu def problème lu dul day wutal siège handicapé ba mu demee mu mu dajale xaalis ba am ko mu ñëw ni ma ana sa terrain ma ne ko awma terrain mun ma tey nag bala maa dem Allemagne man mii di ñibbi il faut nga teg sama loxo terrain. sinon du mu mën a indi xaalis bi pour tabax tabax bi pour te dire que yàlla daal mayoon na ma yombal yombal. ci mm-hmm. autorité yi. booba tam y en un gouverneur. Mm-hmm. wallaay fàtte naa tur ba kan la ci gouverneur yi est-ce que ci du ñetti camara yi fi nekkoon kenn ci ñoom. Mm-hmm. ma fekk ko ca mairie ba. mu nekk en séance de travail. ma yóbbante ci moom. ce gouverneur là il a suspendu jox keneen mu continuer ko réunion ba mu ñëw fekk ñu ñu ndax ay handicapé laa àndaloon ak ay ay ay ay partenaire mu ñëw mu ni partenaires yi mun ngeen dem ñibbi bu ngeen di ñu balaa ngeen di ñëwaat di ngeen fekk terrain boo xam ne dinaa ko jox handicapé yi bu nekk ci seen tur mooy seen centre bi keroog ba ñu indee financement ba war a commencer liggéey bi euh, ma yóbbu leen ci terrain bi jox leen kayit yeeg yépp keroog ba ñuy poser la première pierre ci liggéey boobu ma liggéey ba am financement bi keroog lañ ma defal promotion boo xam ni doublé na trois fois bi ma amoon donc tabax boobu madame Ndiir moo ko tabax parce que madame Ndiir laa passé service bi may mun a suran moo tabax tabax ba bañ koy inauguré bañ koy inauguré dama ñëw toog comme invité presque wante rëccuwuma ca dara parce que may mun a suran elle l'avait bien tenu développé baaxal ko loolu aussi. lu lu am solo la ci lu ma lu ma marqué ak beneen vous pourrez après résumer ak beneen boo xam ni dañ doon amoon quinze quinzaine de la femme ñu am set setal ma dem ma fekk préfecture daal xaw a am ñagg-ñagg daal mu ñëw ni préfet dama bëgg ñëw raxas préfecture mu ne mais madame Dieye lu sa yoon sama préfecture ma ne ko ay eh, monsieur Diaboula dimbale ma boobu monsieur Diaboula c'était la préfet mm. ma ne ko damaa bëgg ñëw raxas fii waaye dindi lënd yi def yëpp mun ma ah ma dem Dieye ma ne ma ne ko kañ ma jàppal ko bis mun ma d'accord ma ñëw ruq boo yaakaaru ni rek eh, waruma koo bale rek dugal naa fa sama loxo may an mbalit ya soluma sax gan sama loxo laa doon tibbekee bi pour te dire que man je suis tellement passionnée quand je fais des choses léegi fi ñu fi ñu fi ñuy fi ñuy kiyee nii rek may an mbalit mi ak ñoom day nogay njaay les femmes tout le monde autour de moi ensemble on nettoyé te préfet ni ma madame Dieye venez répondre au téléphone ma di yéeg daal ni allo ma ne allo kokan la ñun ma c'est le ministère de la santé ma ne ministère de la santé bi euh, quest que vous voulez monsieur ou madame mu daal ni ma vous êtes euh, nommé dans la commission médicale pour convoyer les pèlerins à la Mecque xoolal loolu en a pris de photos yoo xam ne dama interdit Ndeye Nogay mu wane ko doomu aadama moo wàcc ci suuf ni leen yéen xale yi xale yi tàccu leen kontaan la lu xew lu xew jàmm la man leen ministre ma téléphoné de la santé léegi ni boole na ma ci commission médical bi war a dem convoyé pèlerin yi cette année te deme laa jël sama vol xam nga donc doomu aadama def lu baax ça paye toujours alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim comité bi chargé de du suivi joxoon nañ leen 10 millions ñu jox euh, cinq millions yi niveau national jox euh, beneen 5 millions trois départements Thiès ak euh, Mbour ak Tivaouane sans compter bi moom dañu leen demandé woon lan ngeen soxla ñu joxe ko si peut sortir des photos madame Sam si tu des photos donc ñu jox leen aussi ay produits ñu soxla woon ay gel ay tout jox leen ay euh, quelques médicaments yi ñu soxla woon sax d'urgence ay boot ak yëpp ba pare fondation bi aussi créer na une mutuelle de santé boo xam ni mm, à peu près enrôlé nañ ci 200 personnes waaw aussi da nga koy fay. c'est de l'argent chaque personne nous coûte à peu près 11 000 francs et nañ ci lu ëpp 200 euh, euh, par ailleurs aussi. chaque année sauf les deux dernières années dañuy organiser benn don de sang bu mag a mag woo entreprise yëpp ñu indi seen seen participation ci seen san te vraiment loolu transfusion sanguine moom euh, lu ko lu ko neex la parce que am nit ñu bari ñu noonu à la fois dafa yombul te bu ñu demee ci ñaari société yi rek euh, mën nañ fi am sang bu bari maa ngi ciy profité aussi pour remercier société yi parce que maye sa deret aussi c'est personnel kenn mënu la ci forcer waaw ci vaccination Covid bi aussi fexe naa ba ñaan ministère de la santé mu ñu ñëw ci société bi même vacciner employé yi loolu aussi fondation bi def na ko. en table banc nag moom wax dëgg yàlla chaque année ñu distribuer beaucoup de table banc y a des photos peut-être de table banc qu'on distribue sous l'égide de l'IA donc tout ça l'un dans daal ñu ngi mën a des activités yoo xam ne daal ñun dañ koy denc ci suuf rek quelque quelquefois nag ñu woo Eumeu Ndiaye ni ko kaay wax fii ci Sud FM euh, très rarement fois sax xale yi ñoo ñoo ma ci gën a poussé pour ma woole média comme Ndiame ak les jeunes là Ndiame c'est mon adjoint moom doonte moom dafa maa sëf xale bi dafa maa sëf liggéey bi rek bàyyi ma donc xale yu baax lañu respecte ma elle me font confiance vraiment lépp li ma koy doxal maa ngi koy doxal ci sama sago mais dans la transparence xeebu ma leen benn yoon papi mooy trésorier bi lu may def lu ñu ci d'accordé bala maa décaissé daf ci teg waawam donc daal fondation bi daal yal nañu yàlla lafal cat fondation familiale la mais ku ci nekk ci niveau bi nga toog yaa ngi ci dugal sa loxo j'en profite pour remercier Cheikh Cheikh Dieye Koli ñoom ñi nga xam ne ñooy magu xale yi te sawar lool ci fondation bi bu baax a baax a baax voilà di di sama am naa nag sama ñaari sœur laa leen di tudde maak sama borom kër ñoon ñoo ñoom maa laa bokkaloon borom kër gi muy Léonie baas Dieye di yaayu ñoom papi ak Ndeye Anta Dieng ñoom tam maa ngi leen di remercier sama ay rakk yu baax lañu contrôlé xooluñu elle me blanche li may defit de chaque fois naa leen ko leeral ba mu dal seen xel donc euh, voilà en gros ce que je voulais dire. jërëjëf euh, salaamaaleykum wa suñu mbokk internet yi ñuy seetaan euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne nag tey ce solidarité dafa ñëw fii ci fondation Amadou Dieye ñëw fii ci bis boo xamante ni dañ koy amal muy le premier avril vendredi lay tombel à partir de vingt une heure à la salle Auchan. Thiès solidarité day def lu ñuy wax gala de la solidarité at mu jot dañuy tànn ay Thiessois sargal leen ngir taxawaay bi ñuy am ci solidarité ci askan wi waaye ren Thiès solidarité dafa am beneen facette buñ ko defee ndax ren dañoo tànn la femme la plus sociale de l'année ci at mi dañ ko tànn biñ koy tànn dañoo toog ñu waxtaan ci suñu biir xool jàngat tànn suñu yaay Adja Awa Xol li tax ñu tànn ko nag wax naa ko sànq dama koy répété ndax ñëpp xam nañu ci solidarité ay choix am nan la koy defee ñun duñu tànn nit ngir xaalis duñu tànn nit ngir li ko neex du ñu tànn nit ngir opportunité déedéet képp koo xam ne dañ la choisir c'est parce que dañu gis ngay ménager say effort suba ak ngoon guddeeg bëccëg ci loo xamante ni day jàppale Ceesuwaay te ñun cee solidarité. fondation Amadou Dieye yàgg ñoo taxaw yàgg ñoo jàppale lépp jaar ci suñu yaay la preuve en nekk amoon nañ fi cas bu nekkoon fii ci Ngent fii lañ ko jëlee en charge ba niñ ko defalee opération ba ni mu wéree dellu ci ay mbokkam tey suñu xoolee cees bii ñu dëkk nga xam ne day dëkk boo xam ne dafa bokk ci centre Sénégal Thiès nekk dëkk boo xam ne dafa bari population bu fi ne ñoom ñu jël ñaari corbillard mettre ko à la disposition benn bi mairie ville benn bi mairie ouest corbillard yooyu le maire keroog bi ñuy inauguré rue Amadou Dieye fii ci carrière le maire Alioune Sow wax na ne corbillard yi dina jógee Thiès di dem ba Guinée ngir yóbbu ay corps foofu kon donc tey loolu amul lu ko gën a doon solidarité bu ñu ñëwee tamit jamono ji yàggul hôpital régional bu Thiès ñu yëkkati ambulance médicalisée moom mu jiite ko ñu jël ko jébbal ko hôpital régional te ñëpp xam ne jamono ji ci wàllum santé loolu luy askanu cees yi teewoo la rawatina ci hôpital yi kon tey suñu toogee gis loolu te liggéey boobu yëpp nga xam ne nag mi ngi am te moom mu koy def da koy def sans bruit da koy def doo ci dégg coow doo ci dégg fu mu defee reportage wala fu muy wax lépp da koy liggéey def ko te yàlla tax sànq maa ngi koy wax ci sumay kàddu ma ne euh, lii nga xam ne moom la ñu taxawal fii ci cité Malick muy fondation Amadou Dieye te moom mu am initiative bi jël ak njabootam ne leen nañ ko def mënoon naa bu ko neexoon mënoon na ko bañ a def te benn Cees waa du ko ci wax dara li koy firndeel mooy ñëpp xam nañu fondation lan mooy sosam ku ne fondation entreprise lay doon boo xam ni day liggéey at mi ay milliards ñu génn ci ay milliards muy benn budget teg ko nii di ko jël di ci def ay actions sociale moo xam muy fondation Sonatel Orange soo ko Socosim Port comme ni ko ñëpp xamee loolu la ñu xam mais dajale sa njaboot. ne leen ci li ngeen liggéey damaa bëgg kenn ku ci nekk na nga ca yëkkati la nga ca ma ca mën a jox man ma boole ceeg la ma ca war a def ñu jël ko di ko jàppale askan bi di ko jox delloowaat ceesuwaay loolu mu ngi soog a am à dañuy waxtaan dëgg te yàlla tax kon nag yaay booy lii Thiès solidarité tànn la def la laa fam la plus sociale de ne da nga ko mérité moo tax ñu def ko te ceesuwaay yépp tey mën naa ne ñoom la ñu teewal fii parce que tey acte yi ngeen def mu jëm Thiès tey mën naa ne Thiès waa yëpp lay servir bis bu jot nga gis nit ñàkk nit sa sœur wala sa frère dem bind ci maire bi jël fa corbillard dem yóbbu ko dëkk ak dëkk tey ji ambulance boobu mi ngi servir ay Thiès waa yu bari yoo xamante ni suba ngoon guddeeg bëccëg euh, ñu ngi koy gis ci dëkk bi. kon donc tey mën nañ ne ñun tey dañ fi ñëw en tant que Thiès solidarité mais tey dañ fi teewal tey Thiès waay ndax xam naa ne kàddu gii ma taxaw yëkkati tey. Ceesuwaa bu ci ne bu mënoon taxaw yëkkati ko di ko def te ñoom ñëpp kàddu gi may wax mu ngi seen biir xool ndaxte yéen yéen a ko ji Ceesuwaa yi ñun nag Thiès solidarité askan bi moom moo ñu fi tax a toog ay jeunes lañu ay ndaw lañu bi ñëpp di créer ay structure ñii dañoo créer ay mbir di yëngu ci lu jëm ci zaayir di di tëgg ay baal ak yeneen ak yeneen ay sorti ak yooyu ñun dañu créer Thiès solidarité bi ñu koy créer ak ay Moustapha Cissé ak groupe bi ñu àndal dañu toog ñu jàngat xool ne. askanu Sénégal ñu ci bari ay néew doole leen seen loxo jotuñ seen ginnaaw ñi dañuy xëy am ordonnance duñ ko mën a jënd ñii dañuy xëy feebar dem hôpital duñ mën a faju donc ñu ne nañu créer fondation Thiès solidarité bi ñu koy créer booba mën na ni mille francs nekkul suñu poste mais comme am nañu xol bi ak yéene bi ñu ànd ci bokk ndey bokk su ñu amee cas kenn ku ci ne da ngay génne ñii ñi francs ñii 1500 ñu dajale dem faj nit ki ñëwaat toog ba yàlla def ñu ay opportunité ak fondation Amadou Dieye ñu jëlal ñu fi ay cas en du benn yoon du ñaar kon tey su ñu demee ba delloo siwaat lii fii ci kër gi yaay booy loolu yow yaa ko mérité ñun liñ lay ñaanal mooy dañ lay ñaanal nga am gudd fan ak wér yàlla bàyyi la fi ba ci kanam ndax yow sa yàgg fii dafay njariñu ceesuwaay loolu dama koy wax parce que idée yi nekk ci sa bopp idée yooyu ay nit ëpp nañ leen alal foofu wax naa ko sànq y a autant de milliardaires dans ce dans cette ville mais tey amuñu idée mën a créer luy delloo ci askan bi te sëñ Fallou dafa ne boo xëyee bis yàlla jox la ci sa poos loo xamante ni mën nga cooy dépensé ba mu des yàlla daf laa séddaleloo li ci des waaye li ci des moo ko mais loolu liñ ciy servir mooy tey lii nga taxawal am na ñoo xamante ni tey am nañu lu ëpp loolu mais seen idée ak seen xel ak seen xalaat yóbbul nekkul ci mën a créer loo xamante ni mën naa dimbali ay néew di doole kon su ñu gisee ku def loolu dañuy saluer cette initiative là dañ koy rafetlu ba pare ñaanal la nga yàgg fii ndax xam na ne yow tant yaa ngi fiy yàgg Ceesuwaay dinañ bénéficier wu ci yow te képp kuy sa njaboot ak ku la wër di nga wax ak ñoom ne leen kat lépp lu ngeen am jéem leen ko bokk ndax dañoo toll jamono jii bokk mooy li nga xam ne moom la ñu war a def ndax ñi am jafe-jafe dañu bari kon donc vraiment kàddu foofu lañ koy tënk di wax ne nag bis bi xam na ne sa tànk oyoful waaye bëggoon nañ même bu doon sax fukki minute nga ñëw ci bis bi taxaw Cees waay mën laa gis ñu mën a wax li tax ñu porter suñu suñu suñu choix ci yow ndaxte loolu suñu honneur la suñu sag la ñun ay jeunes lañ dañuy yëngu ci social mais tey yow royuwaay nga si ñun ñun tey bi ñu ñëwee li ñu waxtaan ak yow fii ak li ñu xam ne xam nañ ko ci yow ñun ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi dem mais ñaan nañu yàlla ba yàlla dimbali ñu ñuy liggéey di liggéey ba mën a agsi ci loolu donc moo tax tey ji ñun tamit vraiment ñu ñëw jël lii jagleel la ko donc di sant ñëpp di ñaanal aussi suñu papa El Hadj Amadou Dieye dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana te am nañu yaakaar si moom ndaxte tey euh, nit ku ci ne boo fi jógee nga bàyyi fi njaboot boo xamante ni day dimbali ay néew di doole njaboot boo xamante nii dañ lay ñaanal kon xel day dal donc vraiment moom tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax di remercier famille bi mm. ñëpp di ci jiite suñu grand frère ñoom um Cheikh ak Koli ndax Cheikh ak Coly ñëpp vraiment miinante wuñu yenn miinante yi mais dégg nañu seen taxawaay ci Ceesuwaay di remercier aussi ñoom Ablaye ak vraiment Njàmbe njàm ak papi ndax fii bin fii soo a ñëw njàmbe yaakaar naa moom lañ fi àndaloon ñëw si yow moom vraiment tamit njàmbe ku euh, homme social la ndaxte ku ñuy faral di taxawu la tamit aussi donc ñu ngi sant famille bi yëpp di leen ñaanal vraiment ce solidarité daal ñoom la delloo njukkal bi di la ñaanal nga gën fee yàgg lool te ànd ak wér jërëjëf